mais euh, nga présenté yaay kan d'abord. waaw député Sanu Dione le premier vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. donc li ñu gis mooy maître Clédor ak Sonko bi ñuy ñëw dañ leen gazé te te li tax mu doy waar Sonko bu ko neexoon sax toog këram bañ a ñëw. Sonko a demandé au juge est-ce que da nga joxe ordre d'amener le juge doit dire joxewuma d'ordre d'amener est-ce que tu a demande da nga joxe ordre ma am fu ma jaar mu ne ko non j'ai pas donné d'ordre mu ne ko j'ai été brutalisé Gagme Maître Clédor aussi a été brutalisé gazé au des yeux ñoom ñaar ñëpp ñu ne ils ne sont pas dans les conditions pour plaider sereinement d' abord Maître Clédor mënul gis dañ ko évacuer à l'hôpital donc am benn avocat bu jógee Burkina ak ñaar ñu jógee en France biñ ñëwee kër Sonko pour s'enquérir du dossier on leur a refusé l'accès parce que depuis heures kër Sonko dañ ko bunkeriser donc pour toutes ces raisons les avocats ont demandé le, le renvoi défense avocat Pastef ñëpp d' accord nañu ci ci renvoi bi donc ñu ngi xaar maintenant le juge xëy na am na lu muy xaar. est ce que am Kër Barthélemy nañu envoyé ay nervi Kër Barthélemy nañu envoyé ay nervi pour ñëw parce que comme que dañoo dégg na Auchan ba lakk nañ ko xamal lan donc envoyé nañu ay nervi Kër Barthélemy donc nous on va répliquer au niveau de de Mermoz. merci beaucoup honorable mais